yaa ngi leen di xalaat ci ah, xas ci <laughs> mais allez toog leen ngeen nii ngeen xalaat devant le prof qu'est-ce que vous faisiez da di doon teg yore bi bi di déglu bu paree ngeen bind noonu ngeen war a def mais da ngeen di toog xas lu mu lay doy dépêche ah. <laughs> vous êtes malade vous aussi hein <laughs> pas normal hein donc. Euh, yéen yéen yéen bu ma wàccoon Sénégal ne damay diriger Sénégal yéen foo leen jëm <laughs> yéen dama leen di tëj ci réew mi yéen bis bu ma ne woon damay jël Sénégal ba yàlla damay wax yàlla xëy na day Fatou si mooy doon président de la république <laughs> da ngeen di xaru ji <laughs> ndax damay ñëw tëj réew mi kenn dootul génn kenn dootul dugg billahi wallahi kitaaba damay def comme Cuba xam ngeen ci kebaara ni mu def man noonu laay def dama leen tëj plus de vingt ans kenn du kenn dugg ñi war a jàngi dem jàngi <laughs> ñi war a liggéey dem liggéey ñi war a bayi ji dem bayi ji ba dëkk bi nag ñeñ ña fa bokk ñëpp nag ma envoyé leen seen biir réew yi <laughs> c'est pas raciste mais c'était juste mode de nettoyer un peu yaa ngi dégg ñi war a dem dem ñi war a toog toog <laughs> ñu raxas dëkk ba mu set ñi war a jàng-jàng ba dëkk bi nag correct vingt ans après de vingt non vingt ans sax bari na parce que vingt ans moom daa bari dix ans dix ans après ma doog nag ubbi réew mi ñu lijjanti suñu ay pétrole <laughs> ah tabax ay kaso tabax ay hôpitaux yaa ngi dégg nit ñi ah di am seeni salaire yu baax def comme Libye ni mu defoon na Gaddafi ah euh, man projet yooyu laa am ci sama àdduna tey bu fekkoon euh, damay jàppale kenn man loolu laa koy conseil mu def ko ah yaa ngi dégg ku nekk sa biir kër comme li lii bi def ñun tey am nañ pétrole war nañ ko mën a am tey ji ku nekk ci ñun euh, ba ci liir bi doogu juddu war na am benn salaire war ñoo faju te duñu faj dara duñu fay dara war nañoo am ay médicament duñu fay ndox duñu fay luyaas duñu fay dara loolu mooy projet de vie bi nga xam ne moom rek la Sénégal soxla te loolu rek moo war a tax ba Sénégal nekk ci jàmm te loolu pour ñu def ko il faut ñu utiliser suñu pétrole bi ñu am mais pour nga def loolu il faut que nga nettoyer dëkk bi mu set nga doog a mën a def loolu jàng euh, xam ñi ngay dugal ci biir réew mi tëj ci réew mi ni ci Chikabara Chikabara daal tëj Cuba lijjanti Cuba dëgg la tey ñoom ñoo gën a retraité fii parce que boo demee Cuba yaa ngi fay fekk ay oto yoo xam ne depuis année année soixante dix la woon mais mais tey boo xoolee cubain yi koo ci gis waa Cuba koo ci gis dafa jàng dafa instruit ñoom ñëpp a jàng donc loolu mooy li nga xam ne pour man euh, idéologie la boo xam ne képp kuy politique ci biir réew mi war nga am idéologie boobu yóbbaale ko ci biir ndax loolu la Gaddafi bëggoon def ba ñu rey ko. moom ba mu nee dafay def CFA dafay def Union africain mu ne Union africain ci lañ ko reyee moo tax man xalaatuma ay Union africain man nañu def suñu Union biir Sénégal ba pare waaw bu ñu defee Union biir Sénégal ba pare doog wax Union africain nañu di na africain yi ku ci nekk lijjanti sa biir réew ba pare ñuy doog wax leneen ndax munoo def Union africain boo xam ne dëkk bu nekk am na ay problème il faut que dëkk bu nekk nekk en condition boo xam ne mun ngaa wax ok union européen pourquoi parce que européen yi ba ñu demee ba egg fa ñu waroon egg lañ def seen union donc ñu nit war nañ ko mën a def mais nañu lijjanti suñu réew ba pare bu ñu lijjantee réew ba pare lu doog nekk wax union africain donc man loolu mooy sama projet bi nga xam ne moom laa bëgg réaliser ci biir Sénégal mais man bëgguma doon ay président ah, wala ay candidat ci kenn non non pas la politique je n'aime pas la politique man xeex boobu may xeex noonu système boobu xam naa ne du mën a nekk parce que il fallait que nga def ko comme loi internationale mais mën nga kaa def beneen système mooy jël alal bi ubbi ay euh, case de euh, case de risparme je pense comment on dit en en wolof mooy ay comme genre banquière yoo xam ne euh, ku ci nekk doomu aadama joo xam ne war mais loolu alal lay laaj. alal bu baree lay laaj soo ko mënul sax def Sénégal gi yëpp mais war nga ko mën a def ci yeneen yenn certaines zones yi yenn certains euh, milieux yenn certains quartiers yi nga xam ne ñoo gën a pauvre ñoo gën a am problème na ah benn famille bu nekk benn kër gu nekk nga wàcc fa benn salaire dégg nga ah. loolu déjà c'est bien kër loolu loolu lu mën a lu mën a réaliser kër gu nekk nga wàcc fa benn salaire bu dul dara sax kër googu am na benn salaire bu fay wàcc comprendre nga am na ceeb ba fay wàcc am na diwlin ba fay wàcc loolu avancement la day tax famille pauvre yi commencé développé wu parce que boo xoolee ñi gën a riche ñooy gën di riche ñi gën a pauvre di gën di pauvre léegi nag pour éviter pauvreté boobu il faut que ñu def loolu dimbali pa famille pauvre yi ñu am benn stabilité benn euh, moyen pour ñu mun a jug ñoom it ndax nit ki il nga pousse ko pour mu jug léegi nag boobaa da ngay dem dugg ci biir rëq dëkk bi. kër këroo kër nga xool ban moyen ñoo fa nekk buñ la war a tabaxalee ñu tabaxal la buñ la war a wàccalee ceeb ak diwlin chaque fin du ñu wàccal la ko bu buñ la war a jox benn salaire bu fixe boo xam ne daf lay dimbali yow sa njaboot ñu def ko man je pense que ne projet yooyu ñoo ëpp importance ci projet bu nit ki war a mën a am ci biir réew mi parce que néew doole yi bari nañu ñi am am nañ ba pare mais ñi amul la. oh merci pour le cœur merci beaucoup ñi am am nañ ba pare mais il faut que ñuy dimbali ñi nga xam ne dañoo am problème mënuñu fexe ba avancer ndax da ngay xool benn kër peut-être même bu dee da ngeen bëgg dégg dégg dëgg dëgg dëgg man saful ne suukar ne xorom pour man <laughs> je vous le jure c'est pas méchant mais je dis seulement la vérité elle ne ma doon rien c'est comme une pour moi c'est une faire man je ne mais pour man peut-être euh, bu mu gën nekkee xale ci film yi la ma mënoon jox sax benn caft mais instant bi joxuma dara rien du tout donc je ne sais mais bu dee rafetaay mën nañu wax ne am na charme am boobu am na c'est une femme mais buñ ne rafet ah fii am na ay xale yoo xam ne boo leen xoolee ne waaw kii dafa rafet rafet beneen affaire la ba tey foofu tamit ma ñëwaat donc bu leen nekk fii rek di peut-être di aller changer leen sax discours parce que su ma doon sama cas hmm, ok. On est en de parler. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on évite de parler de celle-là parce que c'est pas elle euh, mon problème. Euh, donc, c'est mon problème. L'ennemi. Donc, si nous continuons à dîner, Cathy, d'où nous jambons. Hmm? Comme vous avez dit, nous jambons, quoi. donc euh, doomu jàmbur def na fi benn défaut euh, reprendre nañ ndeyam yaakaar naa ne bu gisee euh, live boobu vidéo yooyu lu mu bon bon bon dina def benn lavage de cerveau ne ah pourtant doomeraam ji de am na lu mu waxati waaye li mu wax tamit dëgg la nga nit ki danga koy nit ki bu ragal ñu saaga sa ndey bu ragal ñu insulter la mais li am solo mooy ku dem ba tëdd ba jàkkaarloo sa njëgeenaay di nga xam ne ni kii li mu doon wax yëpp dëgg la loolu mooy jàngat bi am importance ndax moom bu demee ba tëdd dina ne doomi xaraam bi génnaat na waaye au moins que dëgg rek lay wax et là ça me fait plaisir je préfère